ci war a jàngat mooy loo bon comment il que ñi ngay wax ñi ñëpp bu ñu ñëw au pouvoir askan wi leen di gunge ñoo leen di kañ ñoo leen di dugal pale mais bu ñuy génn dafa mel ni askan ay yaat la leen di topp lan moo lan nan lan def bi désamour bi de l'amour à ce désamour nan lan def ba egg si foofu mooy en général du ñu comprendre la commande citoyenne du ñu xam sénégalais yi mobiliser fal la ñoom lu ñu la du duñ ko comprendre mission bi duñ ko comprendre soo xoolee 2000 Ablaye Wade bi muy ñëw waaw man moo tax damay wax 2012 du alternance. 2012 déedéet. alternance 2000 2000 mooy non 2000 mooy alternance. 2024 du alternance. 2000 non 2024 ak 2000 mooy alternance mais 2012 li fi am du alternance. 2000 mille askan wi ñoo jug ni régime socialiste doy na. nanu fi jógee doy na ak am yaakaar ni Ablaye Wade mii non rupture mooy soppi soppi ba pare mise ci benn candidat muy Ablaye Wade mm-hmm. li amoon 2000 moo am 2024 mm-hmm. seen nga après à part Diouf ak Wade ñi si ñëpp zéro la nam mm-hmm. bi polarisation boobu moo amoon 2000 2012 qu'est-ce qui s'est passé kenn doyalul woon ci Wade de on n'avait pas dit que Wade n'avait pas bien travaillé mais dañu d'accordul woon ci mu def troisième mandat loolu mooy dëgg les gens se sont battus contre Wade parce qu'il ne devrait pas présenter mu forcé ne dafay présenter d'accord mais 2024 moom li amoon 2000 moo am mooy un peuple qui a tellement souffert et qui et qui a exigé mais un changement catégorique ma ne est-ce que ñu ngi comprendre askan bi lu ñu wax seen déchiffrer nañ seen seen seen vote bi xam nga il fut yàggut de matu sax at baatu nekk patriote mën nga cee dem kaso. <laughs> mais c'est grave nga ni man patriote la mais mën nga cee dem kaso. <laughs> ñu bëri dem nañ kaso ndax lan photo photo profil téléphone. benn leader non ñu bari dem nañ ndax leen bracelet ah te tey le c'est le mot patriote qui se vend le mieux au Sénégal mais loolu kii def politique moo tax man la ñiy def politique danoo danoo danoo danoo war a sant mais kuy def politique loolu moo nekk sa vocation citoyens yëpp se reconnaissent en des patriotes ñu ni lan la askan bi bëgg ci deux mille à partir de deux mille vingt lan la askan bi bëgg xam nga ñun ay gestion sobre vertueuse yi loolu la ñu daan naxe tey on a le modèle sénégalais le modèle sénégalais mooy lan àdduna bépp naw ñu ci mooy régler li ngay régler ci fulla ak ci fayda ci jàmm tax la première mission de ce nouveau régime c'est de mettre le Sénégal dans un climat de paix et de stabilité c'est-à-dire que euh, loolu loolu pilier bu am solo la ci ci ci ci chantier yi fexe ba ñu tàppe xol yi sénégalais yi bëggante sénégalais yi ñimente am na lu baree bari luñ ci mën a liggéey lan mooy le modèle sénégalais ñun ñun ñëpp a sëngee moon soo demee bitim réew léegi dañ lay joxañ yow sénégalais nga mais yéen yéen nan ngeen def ba wàccee niveau bi ngeen wàcc. Mhm. même dëkk yi nga xam ni sax ay coup ñoo fa am mais dañ ñu doon dañ ñu doon. rey sax dañ ñu doon dañ mooy la modèle sénégalais mooy li të dëkk yu bari ci àdduna léegi mooy su ne këtt ni joon askan wi mën nanoo jëlal seen bopp seen destinée en mhm. kon homme politique bu ci fëgg sa dënn bàkku jàpp ne danga am mbooloo ba déggoo askan wi li ñu wax mais da ngay gestu bu subaa dootoo gis kenn dañu yàgg nax askan wi lu ne nax maanaam slogan bu nekk jaar na senegal ku ñëw da ngay am sa slogan jàpp ni ak des heures li ma gis rek noonu la fekk ne déggoo message bi mooy ni ma wax la commande citoyenne xale yi ma gis nii xale yi ma gis même hymne national bi sax war nañ koo xoolal c'est-à-dire que xale yi boo déggee seen discours c'est-à-dire on on doit tendre vers la sénégalisation de la république. on veut une république sénégalaise. soo seetloo lan moo tax euh, président yi fii jaar yépp même dañuy am yéene mais mujj gi dañuy am benn benn benn distance buy am ñoom ak population bi mooy bu ñu leen di xale yi dañuy am fierté fal le président de la république du Sénégal. mais ci doxalin bi démb rek commencé na ma naqarlu ko trop nag yiñ lay takkal ak yiñ lay ràng mais c'est c'est pas sénégalais ça mais ordre national du lion ordre na qui qui ont des relents sax maçonniques mais yooyu du suñu cosaan du suñu aada du suñu xeet dugal ci benn carcan ñu dema dem ba gis ni yow président de la république nga mais nasaraan bi sax nga gën a déggal moo ñuy daal ci suñu président yi am yépp le système européen ngay jéem a copier man gëw ma ni ko président de la république du Sénégal buy def prestation de serment par force dafa war a costume cravate man gëw ma loolu